acca jërë ngeen jëf euh, yéen sunu mbokku internet bu 221 people ñu ngi leen di nuyu di leen di jaajëfalaat bu baax di dellowaat ku nekk uh, sa wàccuwaay amaat li di kontaan ak mbégte bu baax a baax ni ma ko faral def def ak uh, kilifa yëpp tey ma fas dalaat beneen kilifa di kàngam naam mën naa ne nag uh, ci site bi la fi ndax kooku mooy bàyyi as ñu koy dàkkantale borom sirru yi tey nag xam naa lépp lu di mbóot dinañ ko sulli ndax am na loo xam ne yàlla dénk na ko ko lu jëm ci xam ne paj la ak ñaan dinañ ci yaatal bu baax waaye ni ma ko waxee su nekk te nag ngeen dégg lu ngeen mës a dégg lu waar rawatina nii di combat euh, Balla Gaye 2 ak kii di Bombardier ku bëgg a xam kay daan rek na nga déglu vidéo bi am jeex Baye Ass borom si ruy ma bala nga nuyoog mbokk askan wi. alhamdulilah rabbil alamin arrahmaani arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siraat almustaqim siraat alladina anamta alayhim gayri almagdubi alayhim wala ddallin amin allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima uxliq walqaatimi lima sabaq nasir alxaq bilxaq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله ñu ngi sant yàlla di julli si yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam di nuyu moki àdduna bi yëpp di nuyu kilifa diine xalifa généraux yi kilifa aada yëpp di nuyu ñi ci biir biti dëkk dëkk bi ak ñi ci biir réew mi di leen nuyu yéen di leen wax tafadal maskura bismillah jërëjëf euh, wàllum sirru yi ñu ngi lay fay bu baax di lay dalal comme ni ma koy def ak say naataango yëpp. amaat kontaan ak mbégte bu baax a baax comme ni ma leen ko waxee woon tey nag euh, euh, fa ma bëgg a tàmbalee bëggoon nañoo xam fan nga nekkoon fan nga lëlu woon réer bi yàgg na euh, lan moo tax ñu gëj laa gis ci biir internet bi. ah alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax ci laaj boobu di wax ne dara waralu ko lu dul jaamu yàlla rek moo tax ñu lëlu woon boole ko tamit ñu ngi nekkoon ci ay tournée ci biti dëkk bi macha allah am ay aajo yoo xam ne nit ñi dénkoon nañu ko. Mhm. wax ne Baye yàlla def ko amal rek pour muy faj aajo jaamu yàlla yi. Mhm. loolu rek moo tax yàlla amal ma. Mhm. du leneen te aajo bu xas ba toq ci noppam. incha allah yàlla dana ko faj. Mhm. incha allahu taala. tarkalla jërëjëf kooku mooy Baye Ass borom sirru yi euh, lëlu beeg euh, génn tukki bi di sàkku xam lépp nag am na loo xam ni euh, taatan na ko yàlla may na ko am na loo xam ne jëlee na ko ci borom yi xam-xam ba lu mu la wax rek takkal téere moo tax rawatina li ma leen wax ci combat Balla Gaye 2 ak Bombardier xaar leen dina leen jox victoire bi. acca fa may tàmbalee tey bokk na ci liñ naan kaaraange du ma nee kaaraange yow mii di koy ñaanal nit ñi yaa ñu ko gën a bëgg man mi la koy laaj bëgg naa ko ko la lan ngañ ci mën a wax rawatina jamono ji ñu toll nii. alhamdulilah euh, jamono ji ñu tollu yaakaar naa ne kenn du wax kenn utal protection parce que gis nañ li fi xew yépp damay faral di wax ne doomu aadama bu amul protection amut kaaraange ci boppam du mën a samp dara mu taxaw du mën a commencer dara mu egg loolu lay kaaraange di jëriñ léegoo nga gis nit commencer dara eggut dafa amut kaaraange rek alhamdulilah ñu ngi ciy liggéey loo xam ne nag bis buñ paree ci yow ci kaaraange duggal fu la neex demal fu la neex incha allahu dara du mën ci yow dara. Mhm. incha allahu taala. barkaala foofu mënuma faa génn ndax dañ maa def benn remarque euh, lii di accident yi day gën a bëri di gën a yokk xanaa sëriñ si ñoo mënatut a ñaan wala ndax sëriñ bu jëkk ne su ma la defalee kaaraange fu la neex dugal lu la neex dara lii di accident dina mucc ci yow te ñu seetlu ne accident yi dañu gën a bëri rawatina tournée économique yi président Macky Sall di def. waa alhamdulilah loolu dëgg la parce que nit ki balaa nga koo mën a ñaanal. dangay xam-xam dëgg-dëgg cosaanam dëgg-dëgg biddiwam ban heure lay fenk nga dog ko mën ñaanal yàlla mu jàpp ko léegoo léeg nga gis ne ku ne sëriñ bi ñaanal na ma waaye gisuma li may ñaanal kooku dafa xamut fi mu lay jaar hmm. am na nit koo xam ne doo ko jox saafara noom ba nga koy jox am na nit koo xam ne saafara nga koy jox ça dépend ci biddiw yi ça dépend tamit ci nit ki hmm. nit ku ne dafa am loo xam ne nii boo ko defalee ala xaal dafay dafay jàpp daf koy jàpp. te ñi ngi lancé appel aussi si ñi nga xam ne ñooy ànd ak nitu nguur yi nañ def très attention comme ni nga ko waxee. Hmm. parce que ak accident yi bëri na lépp nit ñi kenn du si dellu dellu si waat di ko wax waaye alhamdulilah nañ ut kaaraange rek. Hmm. waaw loolu laa la mën a wax nañ ut kaaraange. Hmm. nit dafay pare ci boppam. waaw doog a mën a doog a jublu leneen. waaye boo parewut sa bopp doo doo mën a doo mën a réaliser dara saabu. tarkal Baye Ass yaay borom sirru yi. Hmm. Euh, lii di nopp lan nga ci ci indaale lan nga ci mën a wax. waaw liggéeyu nopp. alhamdulilah nopp moom sant yàlla bu baax parce que yàgg nañ ko liggéey te ñun ñaan yàlla rek lañ xam ci lañ juddu ci lañ tedd ci lañ am lépp luñ am alhamdulilah di wax ne yàlla moo njëkk a jaami parce wal qaytu yàlla wax na ci alquran ne wal qaytu alayka mahabbata minni da nga sànni mbëggeel goo xam ne dafay tukkee ci ñoom ñëw ci man dégg nga loolu rek loolu alhamdulilah ñu ngi ciy liggéey loo xam ne nag mu nga mbóot kenn du ko wane waaye am naa fi baraada boo xam ne euh, saafara boo xam ne dama koy defar boole kook suukar teg ko ci taal bi mhm. insha allahu taala bu dee jëkkër bu dee sa jëkkër la mhm. dana la jox bopp bu dee sa jabar la yow rek lay foog ne yow yaa nekk góor. tarkalla àdduna bi. incha allah jërëjëf Baye Ass ñëwal nga dimbali ñu ci lii di mbiram ubbeeku ndax euh, rawatina jamono juñ toll borom kër yi ñeneen ak ñeneen fi mu ne nii seen bopp yi tëju nañu ku leen mën a liggéey lii di ubbeeku ba seen tabaski neex nit ñi dëgmal leen jëflanteek ñoom jox leen lii di koppare dina leen neex mbiram ubbeeku. Ah, alhamdulilah euh, nit ki danay judd damay faral di wax nit ki danay judduwaale waale wërsëg waaye wërsëg yi tamit danañ koy créer man ci ñiy créer wërsëg laa bokk. Hmm? mën ngaa juddu am yàlla gàttal sa wërsëg. waaye ci ñaan yàlla amul lu mënut yonent bi sallallahu moo ñu wax ne ud'uuni eh, eh, yonent bi sallallahu alayhi moo ñu wax ni loolu yàllaa ko wax ci alquran ud'uuni astajib lakum hmm. waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni adduwaa silaahul mu'minin mu ne ñaan moom mooy ngànnaay jullit hmm. dégg kon ñaan yàlla amul lu mënut alhamdulilah ñi ngi ciy liggéey loo xam ne boo tiimee biteel bi ngay bi nga war a sangoo. Mhm. boo ko yëngalee ni muy fuuree noonu la sa sa sa mbir yi di fuuree. di jëm ci kaw ni mhm. muy defee veuve. di mhm. jug ci kaw noonu noonu noonu lay waaw. waaw noonu noonu laay créer ubbeeku. ak ci yeneen fànn yoo xam ne comme li ma la waxoon rek ça dépend ci nit ki. parce que nit ki mënoo koo ñaanal defal ko dara mu jàpp tànk xamoo ko nag. waaw loolu dama ci insister tant que xamoo ko mënoo ko mënoo ko. jërëjëf mm. jërëjëf euh, Baye Ass borom sirru yi am na solo acca ak si naa ci sama cëppaandaw émission comme ni ma leen ko waxee woon nag ma ñëw ci li ñëpp di xaar ak léegi di taatan ndax coow li bëri na diggante ñaari mbër yi di Balla Gaye 2 ak kii di Bombardier coow li bëri na sànnante rek missile yi fu waaye toll kii nga bitim réew kii ngi fii nii mais coow li bëri na coow li lépp nag lenn la. Hmm. ngi toog di xaar Baye mooy daal. alhamdulilah loolu damay wax ne yàlla wan nañu ci lu leer nañ nañ nañ loo xam ne nii kenn du ko naatable hmm? waaw lu leer nañ te actuellement nii nii ñu toll nii Balla Gaye dañ koy daan waaw Bombardier dana daan Balla Gaye jël bu ñaaw comme ni mu ko defee woon jël bu ñaaw sax bu bu gën a ñaaw bu gën a ñaaw bii njëkk bi waaw waaye nag bu defee lii ñu koy wax mooy ay sarax yoo xam ne bu ko neexee bu ñëw ci man waaw ay sarax yoo xam ne bu ko defee yàlla dana ko dana mujj ëlbati affaire bi jox ko jox ko ko. ñu taxaw ci daan bi balaa ngaa ñëw ci sarax yi. Hmm. daan bi. Hmm? daan bi li laxasu ci biir ba nga ne da koy daanaat. comme ni waaw parce parce que actuellement nii ni mu mel. waaw parce que actuellement nii Balla gay njëkk nañ kaa jug. waaw ci côté baatin njëkk nañ kaa jug fuuf sax. ñoo ko mën instant bi bombardier moo ko moo ko mën ci côté baatin instant bi moo ko mën ci gàllaaj mën ko ci lépp instant bii may wax ak yow waaye nag gis nañ ci loo xam ne bu bu ko defee mhm. yàlla dana ko dana ko dana ko suturaal may ko ndam loolu mooy lam mooy que ni dafa war a génnee juróom-ñaari xar yëpp nag euh, benn melo lay doon mhm. juróom-ñaari xar mhm. ak juróom-ñaari bëy benn nag bu ñuul juróom-ñaari xar. Mhm. juróom-ñaari béy benn nag bu ñuul. su ko génnee rek bu ko defee lii yàlla jox ko ndam. su ko deful. waaw su ko deful nag dañ koy daan. jërëjëf ñu bala tàggatoo. waaw alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci Yonent bi sallallahu di faral di ñaan ni képp koo xam ne aajoom narta fajoo ci ñun yàlla boo ñu woo bu ñu seetaan sax bu ñu dégg. Mhm. waaye képp koo xam ne ooñee ñu rek. Mhm. xamal ni sa aajo dafa nar a faju wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin